bi mu jugee ci banque d'Abidjan bi nga xam ne moo fa nekkoon directeur général lauréat meilleur manager 2021 corridor journal bi dikk na ci nee na tamit fay mi maanaam ku fës ci lu jëm ci wàllum secteur bancaire ci zone UEMOA vingt cinq ans d'expérience ci lu jëm ci wàllum domaine bancaire journal bi daat nay ñëw ci résultat yi nga xam ne moom ma fay def na ko ci banque de Dakar daat na ñëw ci parcours scolaire ak professionnel bu banquier sénégalais dox na seen programme d'aide bu yees boo xam ne toll na ci mille cent cinquante milliards waaye nag Sénégal dina xar tànk tubéyam ba wàññi li xam ne maanaam mooy bor bi mooy dette bi waaye tamit Sénégal dina xeex lépp xam ne jëm na ci wàllum blanchiment d'argent Sénégal tamit dina xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllum financement terrorisme journal bi nee na yokk si adaptation changement climatique yéen kay gi nee na accord boobu ñetti at la ministre Mouhamadou Moustapha Ba mi ñu ñu doon janoo ak taskatu xabaar bi lu jëm ci wàllum exploitation gaz loolee dina mën a tax ñu wàññi bu baax a baax lu jëm ci wàllum subvention yi xam ne xaalis boobee danañu ko mën a jël dugal ko feneen lu ci mel ni bourse sociale yi journal bi di Direct News daat nay wax ne ñi nga xam ne ñuy waa IFMI jamono ji daat nañuy feddali confiance bi nga xam ne am nañu ko ci Sénégal moom ministre bi daat nay wax tamit ne lu jëm ci wàllum bor bi 2024 dina daal di wàcc bu baax a baax yéene kaay gii di ñi nga xam ne ñoom la àndal ci union nationale des chambres de commerce procureur ñoo ngi doon janoo ak taskatu xabaar yi di ñaawlu li nga xam ne moo am ci biir chambre de commerce waaye tamit di ñaawlu bu baax a baax doxalinu ministre bi doon nañu ñaawlu tamit jalgati yoon gi nga xamante nemmeeku nañ ko si ñoom Serigne Mboup li ñu jàpp mooy dafa am ay lobby yoo xam ne ñooy ruube jamono ji ngir nag lëndëmal wala tromper administration bi moom Serigne Mboup nee lu jëm ci chambre de commerce da Dakar du candidat waaye nag jamono ji dina yoo xam ne yu libre yoo xam ne danañu mën a dem ci man cee gis boppam jamono ji tamit bëgg-bëggam mooy ñu taxawal ab chambre d'agriculture moom njiitul union des chambres de commerce industrie agricole daan nay wax ne ci keneen wet gi am na ci ñoo xam ne bëgguñoo dem ay élection waaye nag ñoo ngi def ay lobby di def ay dëbbal dëbbal ngir nag nax ki nga xam ne mooy ministre bi ñu dénk wàllum commerce ndax ñoom bind nañu ministre bi ngir nag mu convoqué ab assemblée générale extraordinaire te loole ministre bi amu ci sañ-sañ amu ci droit wuru def lu impossible la te loolee jalgati ay texte la la yéen kaay gi di réew mi ko di lu jëm ci li nga xam ne moo xewoon Ngor ak nag jàppante yi nga xam ne moo fa amoon diggante ñenn ci askan wi ak waa gendarmerie ak ñi nga xam ne ñoo ci jot a faatoo ak ñi ci a loro ñi nga xam ne ñuy a xam ne doon nañu ko tiire ci askan wi gendarmerie jàpp gaa yi manifester da leen infiltré benn ne gendarme bu leen infiltré la ñu dóor ko ba xam ne teg nañu leen le quotidien yor yor nee na mi jeexagul la ndax ñoom waa ngor nee nañu maanaam situation bi bu ñu ko réglé wula maanaam dàq ñu benn yoon amalaat a yeneen i manifestation yéen kay gi de le peuple ci xët mu njëkk ma mu xëy di fësal ne Barthélémy Dias ndax bëggu tëdd bu li njaa Khalifa Ababacar Sall ak nekk candidat waaye Barthélémy Dias daan nay def ay révélation nee na jàppale nag kenn koo xam ne def na kirima ndax procureur wurtoonu autosaisiru ci mbir mi yéen a kaay gii de la sa nee na F24 tey jii ñoo nga ca place de l'Obélisque ngir nag wane fa seen doole yéen a kaay gii de la témoin nee na démb ba deux heures du matin gars yi kenn joxagu leen woon autorisation yéen kaay gii de Source A nee na tey jii la ñuy amal seen manifestation ci place de l'Obélisque waaye nag bu ñu leen ko tere ndax dinañu ko amal par force loolee ab la yéen a kaay gii de la Tribune xëy diñu xibaar naan ñu F24 jamono ji nag dañoo ërtal Macky Sall yéen kaay gi nee na lu jëm ci wàllum dialogue bi jàpp nañu ko 21 mai bi ñu dégmal la ñuy dialogué Pape Diop bu bokk gis-gis nee na dina dialogué journal bi nee na ñi nga xam ne nag ñooy waa PDS bokk ci système bi ak ñi nga xam ne ñooy waa taxawu Sénégal ñoom Khalifa Sall bokk ci système bi ñooñee ñoo nar a sauver système bi yéen kaay gii di wal fajiri moom Bougane Gueye Dany daan nay wax ne jamono ji am nañu ñu nekk ci système bi nekk ci biir opposition bi ñoo xam ne ay lañ maanaam ay bukki yu sàngoo deru bëri yéen kaay gii de la point mu njëkk ma ñu fekk fa nee na daat nay am lu ko doy sëkk ci élection présidentielle 2024 ndax défi bi nga xam ne moom la jël mooy falaat président Macky Sall ci élection présidentielle boo xam ne musuñu koo gis ci réew ndax journal bi nee moom Farba Ngom la ñu jox lépp xam ne jëm na ci wàllum mobilisation ak wàllum organisation ci coalition Benno Bokk Yaakaar le point mooy wax yéen a kaay gii de Les Échos xëy di ñu xibaar naan ñu Amadou Ba ak ministre yi danañu dem ci assemblée nationale xam ne ñoo fi jekkoon njekk ne mes kenn ki ñu gis ko mu ñàkk bakkanam kenn ki ba léegi gisuñu ko fi ñu fekk baax di Iblisa ñoom fas yéene ñoo wàcc ci mbedd mi yéen kay gi de libération nee na Oustaz Seck ba léegi ma ngi ci garda à vue bi sàkku na ñu def ko manda dépôt li ñu koy toppee lu jëm ci atteinte à la sûreté de l'État appel à l'insurrection trouble à l'ordre public yéen kay gi nee na jàpp gi ñuy jàpp waa Pastef ba léegi mbir maa ngi wéy am na ñeneen ñaar ñu bees ñoo xam ne teg nañu leen ci loxo yéen kay gi nee na ku ñu tegoon loxo te teggi ko loxo di Coro Mandela bàyyi na